corona bi mu commencé ba léegi ba léegi daal métti trop trop trop ci ñun parce que ñun suñu liggéey euh, tubaab bi lañ liggéey na liggéeyal parce que euh, ku ne antiquaire tubaab la nga yàq tubaab nga yaakaar te tubaab ñëwatul tubaab demul donc euh, y a y a plus de voyageurs même nit ku ñu sax dem bu am voyager mun na ñëw jële cadeau yóbbul pour ay ay yóbbal mais léegi avec corona bi vraiment tout est au point mort. corona bi mu commencé ba léegi ni nga ko gisee ni nii la fii presque case bi mot na presque six cent case six cent place mais ñi ubbi boo ko xoolee fi mu neen nii dañ leen di compter motul sax cinquante place liggéey amatul ñun bu aéroport tëjee port tëj ñun dèjà suñu place tëj na ñun ñi nga xamee ne daal amuñu moyen mënuñu am lu ñu toogaale suñu kër ñooy xëy di ubbi di toog bu heure wàcce te duñu gis benn client liggéey bi dafa xaw taxaw ndax taxaw euh, client amul surtout frontières yëpp dañoo tëj toutes les frontières sont fermées et puis on vit la plupart de nos clients viennent de l'extérieur au Sénégal il y a, il y a des, certaines personnes qui achètent là les Sénégalais qui achètent là mais la plupart des clients ce sont eux qui viennent de l'extérieur qui viennent de l'Europe surtout un peu partout quand ils viennent en repartant ils achètent les cadeaux ainsi de suite mais pour le moment c'est un peu calme. gisuñu client gisuñu kenn parce kenn du génn ñu ne kenn du génn ku nekk nga yem sa kër loolu la wax mais ñu waa état bi xool lu ñu suñu suñu liggéey lu mu demee parce que ñu fii lañ yaakaar te tey li ñu ñu toog suñu ku nekk nga toog sa la ñuy wax mais boo toogee sa kër tamit yor yor sa njaboot mënoo toog sa kër parce que li nga toogaale sa kër parce ñu lii lañ yaakaar il faut ñu ñëw xool. nga am sa sens parce que ñu dañuy ñëw fi toog ba suba ba ngoon duñu gis ku ñu jaay waaw. Ah, ñu lay xëy ñoo toog fii ah, ma personnellement damay dàq koor rek moo ma moo ma indi fii no yaakaaruma vraiment dara fii quoi mais mbir yàlla la nag quoi wala ma xëy toog kër ga di gêner aussi moi je préfère ma ñoo toog fii. il faut beaucoup nous soutenir ce ce ce message que je lance euh, il faut qu'on nous soutienne nous parce que on a que ça à faire c'est nos nous sommes là, bah, à cause de touristes, quand il n'y a pas de vol, il n'y a pas de truc, euh, ça ne marche pas. Donc nous venons, voulons à ce que l'État nous, nous aide, qu'il vienne en secours. Vraiment, c'est difficile, surtout sur, pour un père de famille, euh, tout ça, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Vraiment, nous, ça sera vraiment un bon geste si l'État nous aide. secteur touriste la ñuy yëngu touriste amatul ñun léegi liggéeyatuñu te dañoo luwee si ay kër jàmbur war leen fay location yore ay njaboot yu ñu war a dundal ba pare yore ay magasin yoo xamee ne dañuy fay seen borom contrat donc wax dëgg yàlla bu ñu état jàppalewul ñun xamuñu fuñ jëm